sayidina wa mawlana muhammadin al amin wa ala alihi wa sahbihi wa ummatihi ajmain mbokki jullit yi asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu ñoo ngi leen di nuyu di leen ziyaara ci bis bu tedd bi di ñaan yàlla sunu borom tabaraka wa taala mu nangul ñu mboolem jaamu guñ ciy def ñoo ngi nuyu ak di ziyaara sëriñ bi di ñaan yàlla mu yàggal ko fi tamay ko wér ak kàttan ba mu yeggale mboolem naalam yi ci sago tañ ànd kook moom mbokki jullit yi tey dañoo delsi nag ci ñeenti tomb yu mag a mag yi nga xamante ni bokk na ci yi nga xamante ni sëriñ bi radiallahu anhu tabax na ci wooteem bu màgg bii ñeenti tomb yooyu nag ba ca jiitu mooy xam-xam bu am njariñ bu ñaareel ba mooy jëf ju baax bu ñetteel ba mooy ay teggin yu ñu gërëmloo ñeenteel ba mooy sàkku lu lew muy ñeent yoo xamante ni waxtu wu nekk war nañ koy nafaraat di seet fuñ ca toll bu njëkk bi mooy xam-xam bu am njariñ xam-xam bu am njariñ nag mooy xam-xam boo xamante ni am na jeexit ju am njëriñ ju muy def ci nit ki wala mu koy def ci mbooloo mi mu àndal te njëriñ loolu itam nag mooy njëriñ loo xamante ni diine nangu ko te njëriñ la loo xamante ni ca wala njëriñal àllaaxira bu ñu dee seet xam-xam bu am njëriñ boobu nag bokk ne ca ca jiitu mooy xam-xam yi aju ci wàllu diine am na am solo goo xamante ni sax nit ñu baax ni ku masaa géeju ci yeneen xam-xam yi te amoo xam-xamu diine duñ la jàppe boroom xam-xam buñ nangu ñoom loolu la sëriñ bi di jungi ci masaalikul jinaan inna alladi lam yaxsa rabbal alamin laysa bi aalimin walaw af nal funun koo xamante ni xam-xam ba mu am jóolu ko ragal yàlla duñ ko jàppee borom xam-xam ñoom kon ñu xamante ni kon buñ dee xam-xam bu am njëriñ ba ca jiitu mooy xam-xamu diine xam-xamu diine boobu itam nag xam-xam ba lay xamal sa faratee jëmm yi nga xam ne borom bi dala koo gàll te kenn mën la caa wuutu xam-xam boobee nga jàngi ko moo ca jiitu xam-xam boobee moo jaraloon sëriñ bi mu taalif ay téere yu baree baree bari yoo xam ne ku ko ubbi nangu koo jàng da nga ca xamee sa farate jëmm yeggoon na ci na ngeen jàng seen faratay jëmm ba xam ko doonte ne ci seen làkk ngeen nàmp ngeen koy jàng taallamuha walaw bil lughati al ajamiyya na ngeen jàng seen faratay jëmm doonte ne sax ci làkk ngeen nàmp ngeen koy jàng wa man lam falaa yarumanna illa nafsa ku nanguwut a jàngi ba xam faratay jëmmam ëllëg bis penc bu bu mu yedd bu mu yedd ku lu boppam ndax lu ko dal rek moo ko teg boppam loolu na ku ko déggee ci ku toll ni sëriñ bi daa xam ne ab tëkkooyu ci ko ci ku sàggan ba xamoo sa tey jëm xam-xam bu am njariñ boobu itam nag lay wane ne am na njariñ bokk na ca jenn jëf du mën a tege ci aw yoon lu dul danga ko jëfe ca anam gañ la ko digale woon te anam gañ la ko digale woon rawatina mu di ak jaamu yàlla benn muy julli wala woor wala natt asaka wala muy aj màkka ak yu deme noonu nañ koy defee nag kenn mënu koo xam ci te waxu lu dul da nga koo jànge moo tax sëriñ bi yàgg a soññee lool ci jàngi xam-xam rawatina xam-xamu diini rawatina itam jàng xam-xamu diini ba xam sa farate jëm moo tax mu ne li njëkk ci ab taalibe murit li ci jiitu ci moom la ñuy njëkk a sàkku ci moom mooy mu jàng ba xam kan mooy borom bi tabaraka wa taala awwal waajibin alal muriidi taxsilu zaadihi min at tawxiidi ba xam kuy borom bi ba xam lam lay digal nga cay tënku lam lay tere koy bàyyi loola mënut a ñàkk ngalla bu ko def mukk wala ngay dem di gaw naan da ngay zikkar ak di jihaat ak sa bakkan te jàngi ba xam kan mooy borom bi kon xam-xamu tawxid boobu ak li ñuy jaamoo yàlla moo jiitu ci xam-xam yi nga xamante ni te ñàkk ci ab jullit te xam-xam boo xamante ni dafa sukkandiku wéeru ci xam-xam jëf joo xamante ni dafa sukkandiku ci ci ak xam ak ko ràññee moo ëpp ak yool moo ëpp njariñ ci jëf joo xamante ni ka koy def fi fay tënk waaye teg ko ci xam-xam teg ko ci ràññat lay loolu itam sëriñ bi yàgg nañ cee yee mu ne wal ilmu afdalu axi min al amal wa ussuhu fa faaza man lahu xasal nee xam-xam sax day bu ñu ko doon gam-gam lee jëf xam-xamay jiitu moo tax nag ku ko am texe ga qaliluhu bil ilmi aktharu sawaab min al kathiri jëf ji nga xamante ni néew na te ànd ak xam-xam mu ëpp ak lool fuuf jëf ju bari wala jaam yàlla bu bari boo xamante ni ak réer moo ko lay taay kon xam-xam bu am njëriñ boobu bokk na ci li sëriñ bi njëkk a yittewoo bi muy yar taalibe yi ñaareel ba mooy al amalu saalix te mooy jëf ju baax al amalu saalix nag moom la tuddee ak jaamu yàlla jaamu yàlla boo amee xam-xam ba noppi xam-xamu diini na ngay tàggat say cër nag ci jaam yàlla waaye nag jëf moomu te mooy jaam yàlla ginnaaw xam-xam bu am njariñ boobu la ñëw dañuy mottalante kenn ci ñu ñaar mun te dem bàyyi morom ja donte ne sa xam-xam bu am njariñ moom bu fekkee nan nga caa ñàkk benn jiitalal xam-xam bu am njariñ moo tax sëriñ bi doon wax naan wal taalaman bi annaa ilman wa amal wa ma wasilata saadati ajal na nga xam ne jàng xam-xamu diine ba am ko wëlbatiku di jëfe la nga jàngoon nee na ñooy ñaari yoon yi nga xam ne ni ko am ak taxe ca ko amee muy jàng xam-xamu diine ba am ko wëlbatiku di ko jëfee ci sag jaamu yàlla waaye nag mu ne jëfe ga am na solo lool ndax njariñ xam-xam banam laa mën a jariñ rawatina xam-xamu diine mooy na koy jëfee ci sa jaamu yàlla lakinnama tamarahu kan nafi fi amalin bihi fakun dal jami jaam yàlla itam li tax kenn mënu koo def ci tëñaxu dangaa war a jàng ba xam ko jaam yàlla kenn mënu koo def mu baax lu dul dafa dëppoog sunna si yonente bi alayhi salaatu wasalaam ba noppi itam ka def jublu ca yàlla tabaraka wa taala tax sëriñ bi radiallahu anhu bi ñuy firil laa ilaha illa allah muhammadu rasulullah sallallahu jàppe ko sa yàlla bis dana ñëw nga xam ne benn bu amul bu bu amut bu ñuy jaamu te mu yeyoo jaamu nga ku dul yàlla mu dëgg moomee waaye itam mu ne wa man abadallaha bi gayri sunnati muhammadin sallallahu alayhi wa sallam fa sa yaalamu anna muhammadan rasulullah nee na itam yàlla mu dëgg moom mu sax mu dëgg moom nga xam ne mooy yàlla dëgg-dëgg ku jóg ni dama koy jaamu waaye damay gannaawal yonente bi alayhi salaatu wasalaam du ma teg fenn sunnaam du ma ko nee ëllëg bis penc da nga xam ne Muhammad day muy rasulullah moom la wal yàlla tabaraka wa kon kuy jaam yàlla dangay fexe ba mu dëppoog sunna si yonente bi alayhi salaatu wasalaam waaye na nga jaamu yàlla ngir yàlla rek ba nga yàlla ngir mbindéef yi te jëf ju baax jooju te muy ak jaamu yàlla bokk na nit ki tàbbi aljanna ginnaaw yërmande yàlla tabaraka wa taala moo tax seen borom doon wax ca suratul araaf laaya juróom fukk ak juróom benn inna rahmatallahi qaribun min almuhsinin nee na yërmande yàlla lu jege lool la waaye ñan la jege nag mooy ña daa rafetal seeni jëf mooy ña nga xamante ni bala ñuy jaamu yàlla dañuy jàng ba xam ne ñuy jaamu yàlla ñu defe ko noona te dëppale ko si yonent bi aleyhi salaatu wasalaam te jublu ca yàlla mu waxaatoon tam ci suratul araf laayoo téeméer ak juróom fukk ak juróom benn ne wa rahmati wasiat kulla fa sa aktubuha lilladina yattaquuna wa yutuuna zakata walladina hum bi ayatina yuminuun nee na sama yërmaande ñëpp xaj na ci waaye nag ñi ma koy jagleel mooy ña ma ragal tey natt asaka ña nga xamante ni itam gëm nañ sama mandarga yeeg sama aay yi ma wàcc ci kaw suuf mu am ñoo xamante nag dañuy doyadal ak jaamu yàlla benn ñu doyadal julli wala koor wala natt azaka wala aj màkka te boo leen laajee ñu ne sunu borom yërmandeem ak kàttanam ku nekk xañ nga te ñooñu nag sëriñ bi radiyallahu anhu tontu na leen ci maj moo bi ci xetu fanweer ak ñett mu ne xanaa ñiy wax ne ñu day sëriñ bay wax ne xanaa ñiy wax ne ñii doy dal ak jaamu yàlla ngir layale yërmaande yàlla ak kàttanam yaatu na xanaa dañoo xamul ne al awaamiru turuqun ilal jannati allati wa'ida al muttaqun ndigal yi muy jur yi woor yi natt asaka yi aji màkke yi ndigal yooyu ak lépp ndigal lu ci alquran wala sunna mooy ay yoon la yoo xam ne nii ku ca jaar te wàccoo ko sa kër ëllëg mooy aljanna xanaa ñooy wax loolu itam xamul ne tere yi mooy yoon yi nga xam ne ku ku ca ku ko topp te wàccoo ko sa kër ëllëg wala yaasu billaahi mooy sawara sawara sa nga xamante ni la koy taal nekk am mattam mooy nit ñi ak saw ak ak doj sëriñ bi teg ci ne kon fa mata kuntu ala amrin faqad salakta tariqal janna saa yoo xoolee sa bopp ba gis ne yaa ngi ci ndigal lu yàlla digle wala yeneen tàmba ne ne yaa ngi soobu yoonu aljanna soo ko bàyyiwut tàbbi aljanna waaye mu ne walaak su bilaak si nag safaan ba ñu bon ku ko def taseeg safaan ba mooy ku sóobu yoonu tere yi itam na ko wóor ne sóobu na yoonu sawara wal iyaas billah kon ñu xam ne jaam yàlla moom kenn du ko doyadal mu teg ci moom sëriñ bi ne am na ñoo xamante ni ñuy def topp njort lañ koy tuddee te topp njort baaxut lan moo topp njort mu ne mooy koo xamante ni soo ko digalee jaamu yàlla mu tontu na ne ah li ma ciy jaamoo yàlla xanaa xamuloo ne yàlla mën na maa tàbbal aljanna ci lu dul may topp ah, wax dëgg la yàlla day ci kàttanam mën naa tàbbal nit aljanna qadara ala dalika wala wa ala gayrihi waaye na suñu borom mane loola la mane leneen itam nag mën naa loola waaye itam nag bëgg ko bëgguta tàbbal nit aljanna te du jaam yàlla wa maa lam yurid lam te lu borom bëggut du am njoom ci misaal moom sëriñ bi ñu xanaa gisu leen aboo jahil noonu yàlla ba kooku de suñu borom mënoon na ko tàbbal aljanna waaye bëgg koon bëgg ko tàbbal aljanna xanaa gis leen Abu Bakr Siddiq radiyallahu anhu moom la suñu borom dafa nam moom tàbbi aljanna ba nag bëgg ko moo tax mu tàbbal ko aljanna kon nag topp njortu ak jaamu yàlla nga bañ koo def ba noppi yaakaar na ne daa tàbbi aljanna ginnaaw xam-xam bu njëriñ bi jàllee bu am njëriñ bi jàllee jëf ju baax ji te mooy jaamu yàlla topp ca ñetteel ba ci sëriñ bi tabaxoon woote bu mag bi muy al adabul mag bi muy ay teggin yu gërëm ko teggin boobu nag sëñ bi daf koo xaaj ñaari xaaj teggin yu war a dox diggante nit ki ak moroomam bu dee moo tax moo ko ne kun mutaaddiban ala rahmaani kun mutaaddiban maa rahmaani wa maa xalqihi bi kulli saan na wone ay teggin sa diggante yàlla ak sa diggante yi mu fi ba taxoon mu daan mu soññee lu bari lool ci ay teggin bokk na ci am waxoon ni alaykum bi kasratil aadaabi fa na ngeen di bari ay teggin ndax te mën naa xëccal nit ki tuyaaba nee na xam-xam li ñu am njëriñ sax bu ànd ko teggin loraange rek lay jural borom xam-xam boobee akub coono fa kasratu ilmi bi ghayri adabi jaalibatun ilal adaa wa taabi xam ne képp koo xamante ni ma ngay sàkku sàkku topp sunna si yonent bi aleyhi te ànd ko ci tegg def na ko xañ ak taxe ak njëriñ na ay teggin mooy ngeen ji nit ki denc ngir mu jëriñ ko ci àdduna ak àllaaxira te lu nit ki woon ne tedd nga am la la gën mooy mu am ay teggin wa huwa fi daarayni xayru kanzi wa xayru ma tazza bihi du izzi nag ndax ay tëj gi nit ki su ko amee day leeral xolam te da koy jegeel aljanna li annahu munawwirul janaani kama yuqarribu ilal jinaani nee na itam am ay tëj gi dana tax say dëkkandoo tagg tax nit ki sawara sori sawara itam wa yujibu madxalata ziiraani kama yubaaxidu an niiraani ñu ngi ko wax ci nax jox daay xaaj bu dee ay sa tegg ñi dox sa diggante moroomam sa moroom nit nag boo dee mag na nga yërëm gone soo dee gone na ngay wet mag koo tollal ay at nga jàppe ko ni ko sa bopp tariqatul adabi rahmatu sagir kal abi wal ummi wa tawqiru kabir wa jaalu mislika ka nafsika sawa liwa ci xaaliqin ala marsis tawa ca nax jox daay xaaj waaye mu ne teggin boobu nag sëriñ bi nee na teggin boobu nag nit ki la ñuy sàkku ci moom moo ne ko digganteem ak moroomam nitam bu ñuy sàkku sax ci ay ay moroomam ñuy wane ay teggin jëme ko ci moom bal i'tabir min nafsika al aadaaba wala tutaaliban bi asxaaba yow na nga fexe bay wane ay teggin sa diggante mbindeef yi doonte ne sax mbindeef yow waluñ ay teggin jëme ko ci yow waaye yow da def sa war warugar rek foo nekk na am ay teggin te bañ nga sàkku sax ci nit ñi ñu la koy fay ñeenteel ba te mooy mujj mooy talabul xalaal mooy sàkku lu lew sàkku lu lew nag mooy liggéey ba am lu lew di ko dundee di ko dundal sa njaboot loolu inda seyxi waajibul diin sëriñ bi daf ko jàppee farata farata nag mooy loo xam ni dañ la koo digal soo ko defee ngir jëm yàlla am ca tuyaaba soo ko bàyyee yaayoo ci ay daan ñu xam ne kon sàkku lu lew liggéey ba am lu lew farata la wa talabul xalaali fardun yantami li kulli muslimin bi xëyri wa te itam sàkku lu lew moo yoon yi nga xamante ni ki ca la mën a amee te nit ki su dee dundee lu lew dana tax mu mën a jaamu yàlla te dundal lew itam dana nekk ab sart la ci sunu borom nangu sa jaam yàlla moo tax sëriñ bi waxoon ca mun a mu sudóor ne fakul xalaalan in aradta an tutiya allaha wa rasula yaa hada mutia na ngay dunde lu su fekkee da ngaa bëgg topp yàlla te topp ga jag su fekkee da ngaa bëgg a topp yonente bi te topp ga jag na ngay dunde lu lew mu waxoon xam-xam ak jaamu yàlla mënta ànd di dunde lu aram te la ñuy tëje mooy sàkkulu lew mooy liggéey ba am lew moo yoon ñoo xamante ni ci la nit ka mën a sukkandikoo ci boppam ba mën a am ak tànn am lu muy bañ am lu muy bëgg dana tax mu tam mu mën a wattu diineem ak karaamam misaal bi ñu ci joxe rek tëj waxtaan mooy sëriñ bi bi ñu ñaar fukki dërëm ak juróom-ñett bi ñuy taxawal jumaay Tuubaa ji daf caa boole ay kàddu dafa waxoon ne li ñu ma leen dajaloo nii alal ji duñ juróomi ma ci dajale alal rek ak tasaare ko waaye dama leen bëgg a jox bind boo xamante ni bind bu ñuy jëfe la bu am njëriñ ci nu ngeen di sukkandikoo ci seen bopp ak waxtu nekk ngeen def seen këmtulaay kàttan bay fajal seeni aajo ngeen di ko fajal seen bopp sukkandikoo ci kenn su defee lii ma la wax de ma leen wax ak lii ma ci lii da ngeen mën a téye seen diine ma ngeen téye téye itam seen bopp kon mbokk yi ñeent yooyu muy xam-xam bu am njëriñ ak jëf ju baax ak teggin ñu gërëm ak di fàggu lu mooy lenn la ci nga xam ne bi sëriñ bi ci la tabaxoon woote bu mag bi kon ñoo ngi yàlla suñu borom wa taala mu fayal ñu ko xayral jasa te yàggal fi sëriñ bi ba mu yeggale mboolem naa li tam am te ñu ànd ko moom wa axiru daawaana an alhamdulilahi rabbil alamin wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuh thank you